ñang Papa Alé ñang waaw oh, dama doon dama doon waaj pour seeti ko foofu mu woo ma ñu mm. waxtaan bàyyaale mm-hmm. lépp lu mu fi def lu 2A TV def wax ka def sa photo en météo mm-hmm. lépp mar day bu doon keneen itam ci 2A noonu ngay taxawee mm-hmm. xam nañu la donc lépp lu ñu si def nous sommes des Sénégalais dañ ko war a def mu ne ma mais booy am na ñoo xam ne dañ cee jekkoon te defuñu ko waaw fenn la la la la waxee pa Pape loolu moom faw ma wax ko la waxee lu daw sama yaram. Mm-hmm. moo tax euh, moo tax président Sall euh, en fait nous vivons au Sénégal triste ñu ngay ree ñu ngay def lu ne mais nous vivons des moments gis nga dëkk yi nekk ci guerre ñu nag ñoo ma yem. Mm. quand vous perdez une vingtaine de sénégalais daanaka par intervalle de jour mar day taali et puis ça passe tranquillement nit ñi di dund souffrance au quotidien ça veut dire qu'on est ah on est comme l'Ukraine ou da ngay xëy ñu ne la dix personnes quinze ñun ñun ak Ukraine ñoo yem ak keneen ak keneen donc bayaale fa mu wax mu xaw a daw sama yaram te mu nekk mu mu résumé li ñoo dund ñun ñëpp xam nga moo la la mm-hmm. gannaaw remerciement yeeg félicitations yi lépp xam nga moo la lan dafa benn kàddu koor gosaas mm-hmm. dafa benn kàddu mm-hmm. bu daw yaram dafa ba mu yàgg bàyyaale ndeysaan mu ne mais man Macky jiwuma ko lii ça beaucoup de choses ça veut de choses moo tax président Sall yéen kilifa yi ñuy woo naan ñu non non non xam nga le président di ñu wax dem leen ngeen waxtaan ak président Sall ngeen ne ko bu fekkee yëgu ko il est en train de nous faire hyper méga mal dans ce pays dem leen ngeen ne ko président benn Sénégalais bu la wax Baye Assane Seck bu dee seetaanu nu nee na vous faites hyper mal à ce pays là et mu yëg mu bañ a yëg te loolu àq la ki toog naan jiw ma la lii ñaata sénégalais ñoo fi ne jiwuñu lii président nuy dund safa ak marwa ci nguurab président te bu doon ñooñu du falu gërëm na leen. jërëjëf voilà te je pense que ce serait bien s'il le faut même ànd seeti ko. incha allah ah, incha allah loolu farata la loolu farata la na comprendre juste ne euh, sunu wareef rek la ñu def. te pareeguñu sax ndax nag. xeex bi defe naa ne lu jeex tant que retrouvé wul totalement li nga xam ne moom mooy liberté ndax mhm. mhm. fu mu nekk ni liberté provisoire rek et sa santé c'est hyper important mhm. euh, donc vraiment dafa di loo xamante ne dafa jaadu rek waaw te àdduna nag dafa gudd tànk mooy ne nit boo nekkee ci àdduna di dund lu ne mat naa suuraale waaw te mbir mu ne nag boo ko jàppee ni sa bopp rek voilà ni ngay àtte yëf yi day yomb lool ci say mbiri bopp nga xam ne nag euh, ci at mi ñu nekk ak ci contexte bi ñu nekk nii Euh, dëgg rek ay dëgg et dans tous les cas Euh, sunu borom moo ko kàttanal boppam ndax situation bi tolloon na foo xam ne. Mhm. Euh, yàlla mënoon naa def lu nekk. waaye lu nit ñaawal ñaawal moom suñu borom ma ngay rafetal. Mhm. ndax moom mooy wane ne maa yor kenn maa yor ruu. maay sàmm may rot ci heure bu mu ko neexee euh, te itam defal nañu ba mu génn ci kaso bi dellu ci njabootam. léegi li ci des mooy. il toujours à la clinique mu ngi faju léegi. donc yàlla na retrouver toute sa forme. amiin mu wéraat. Euh, euh, retrouver càccanam retrouver léppam ah, ah ba mën a delluwaat itam ci ay activité bu baax a mhm. baax ah donc loolu wareef la ñan yal na yàlla sàmm la bu baax a baax remerciement bi sax da koo jarul ndax wareef la rek ki ah ne lii sa wareef nag ci àdduna da koy def rek te xam ne àdduna bi gudd na tànk gudd tànk boo xamante ne lu waay di def rek na nga sóor ëllëg mhm. du dëgg mhm. voilà lu ne daal Euh, lu ne ñëpp loxo yi képp nga ca mm-hmm. voilà mm-hmm. te ñun nag li ñu war rek la def mm-hmm. donc gërëm nañu la sant la bu baax incha allah daañu wàcc seet si la incha allah euh, sinon nabu pa san soose ngaa la pa tawele baat yendu jàmm <laughs> merci merci ma waaw waaw soose ay ca ko sow rek ma ko bu baax a baax a baax ah, di koy ñaan aussi di ñaan borom bi doole ko wér wallaay waaw loolu moom ndax boo wérul lu bari doo ko def donc wér dafa am solo li ma wax aussi sa vrai. moom loo xam ne moom xam nga da ngay gis ku ñu ku ñu fal nattal ko budget jox ko alal ju dul jeex pour mu tabax tali. Mhm. mu tabaxtali tali yi naan ko yaa aay mais aayoo yow dañ laa fal jox la alal ji nga soxla yëpp ne la defal lii nga def ko ana aay bi donc li ma mi wax pas as euh, bàyyi aale ñun buñ ko buñ ko taxawul loon sax wax dëgg yàlla defe naan ñu bari nañ ñu xeeb. donc lu naturel la lu normal la ñu taxawal mm-hmm. xeexal ko mm-hmm. donc loolu aussi buñ ko buñ ko xeexalul woon 2A TV bi lañ fiy bàyyi mooy yow dindi chaîne du peuple bi ma ñëwee bi ma bi ma ñëwee damaa gaa gis ñu taf bota photo Baye Alé mm-hmm. ma ne waa gars yi Baye Alé bàyyi nañ ko dindi leen lii waaw waaw <laughs> dañu dañu dañu dañu ko fa bëggoon bàyyi dañu bëggoon bàyyi médaillon bi pour wax la rek parce ba ba mu retrouver liberté comme ci mënti doon keneen. Mhm. ni ñu ko taxawale nii noonu lañ lay taxawale waaw et puis beneen information bi mooy mercredi incha allah. incha allah la CAP va se réunir parce que nag euh, malheureusement bi problème bi am dafa fekkoon ñu nekk ci benn lancé muy. Mhm. les assises des médias. Mhm. affaire Paye Allé bi am ñu teg lépp ci suuf. xeexal ko taxawal ko alors comme nag génn na donte dossier bi jeexagul mais génn na mercredi incha allah am nañu réunion bu mag. boo xamante ne dinañu xool naka la ñuy relancer très rapidement les assises des médias mhm. pour que nag vraiment aussi euh, këru tasukaayu xibaar yi gën a euh, am taxawaay bi ñu war a am ci réew mi mhm. euh, concernant mbirum tasum xabaar ak ak lu ni mel ñu ngi koy masaw mhm. yow tamit dellool ñu ko sunu nuyoog sunu sunu sunu masaw et que bu ci bu bu ko jot bi mayee rek daañu ànd ñun ñëpp waaw dem seeti ko waxtaan ak moom Mm-hmm. leneen li may gën a métti du nag ci làmb ji soo ma ko mayee mooy bi làmb ji tasee mm-hmm. maa ngi gis supporters yi di buddi siège yi di ko sànni mm-hmm. gis nga nag gis nga nag ñi naan làmb c'est pour abrutir la population parfois ils ont raison parce que nag am na am na am na acte yoo xam ne moom très sincèrement kenn waru ko rafet rafetlu arène nationale saa waaye daan nañ sa mbër ngay buddi siège yi di sànni loolu bokkul ci mu nag doy na waar bokkul ci mu de Hmm. loolu nag wax dëgg yàlla nañu ci ñun dimbali nag. Hmm. waaw ñu naan Pikine dañoo bëgg làmb nag Baye Assane ba tax ñu tabaxal leen arène nationale dañoo juum. mais ndax stade bee ñu tabax jam ñaajo te jam ñaajo kenn dëkk gu fa ana kon ña fa bëgg football. ah mais c'est tellement vrai. logique pour logique. c'est tellement yow nee na waa Pikine dañoo bëgg làmb bañ tabaxal leen arène nationale. mais làmb kenn bañu ko. kenn bañu làmb Ablaye bee ñu tabax ci àll ba nag moom. <laughs> xanaa kon garab yeeg bukki yeeg gaynde fa ne ñoo ñooy seetaan football ba. waaye ñun daal làmb rek la ñuy yéene. ah jërëjëf Socé. man de yërëm naa la ñun def ca làmb ja. bu fekkee ni dañu koo may. yërëm naa la boo xamante ne chinois yi moo ñoo ñu ko may n'est-ce pas. ñu ko jëloon. taxawal chinois yi ñu ko may ñu naroon ñoo ruube. waaw faf ñoo ñëw. waaye tubaab moom kenn du lekk alalam di tëdd nelaw waxuma la ak chinois. du <laughs> dëkk euh, lañ ko defee arène bële mu ñuy indi insécurité totale inte te deful benn création d' emploi mënoon nañu coo dimbali ci Dominique bële. ñu am hôpital euh, niveau un au moins pikinois yi bu ñuy fajoo ci du ñu paas di dem ba dalal jàmm géejawaay pour mën a faju. gis nga nasaraan bi chinois yeeg américain yi duñ la may. Mhm. dañuy bind na dañu la koo may. MCA am na am na tali yu ñu tabax ci Sénégal. Mhm. day dem fekk ñu tabax tableau bind ci don du peuple américain. Mhm. <laughs> doy na préciser ba mu leer. waaye nag dama leen di masaw yéen parce que yéen làmb bu amee mami. foofu il faut nga dëkk fa làmb am fa pour nga xam li ñuy wax lan la. am na ñoo xam ne dañuy tëj seen kër. Hmm. parce que insécurité bi agression bi sàcc yi. mel ne Tulle ak Malle ci lan sport. mais man ñi dëkkoon Sicap ak aux alentours lañ doon dund ak euh, stade Demba Diop. maa ngi koy soo man maa ngi soog a gëm ni loolu am na. parce que moom la ñuy dund.